بسم الإله يا الملعب xanaa sant yàlla rek bi mu ñu boole ci lii tey nag sant bu baax a baax Cheikh Moul Mountakha di ko ndokkal ci bisam bu rëy bii nga xam ne ni mu ko waxee mooy bis bu gën a rëy ci li mu am ci àdduna muy bis boo xamante ne bii bisub Serigne Touba ndax ñaanu Serigne Touba la ko nangoo ci moom mu def ko nag defal ko réew mépp defal ko lislaam jëpp kon daal suñu xol sedd na xooli mur yëpp sedd na xooli juris yëpp sedd na xooli taalib yëpp sedd na bis bii da nga koy méngaleeg ba ñu teg euh, xeeru jumaa ji wala ba sëñ Moussa di inaugurer raay bi wala ba sëñ Fall di inaugurer jumaa ji wala bisu Masaalikul Jinaan wala ba sëñ Abdoulaye di yokk jumaa ji ay histoire bi day am ay date bii nag dugg na ci date yooyu te du ci génn mukk ci ndax fu ne dana fa jógee jàng si li ci gën a am solo nag mooy kenn du fi jógee di dem ci réew yi naar ñëw di yeneen jikko loolu am solo nga ne kon danañ jàng yar téye sunu taalibe sunu jikko du ci benn côté loolu mooy li jëpp solo di sant rek jërëjëf